asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi nuyu nañ leen ñëpp ku ci nekk turam ak santam euh, fa yéene waxtaan rek ci beneen événementiel beneen événement comme nga ñun suñu surfe ci événementiel beneen bu bees bi mooy lan euh, kerook Ousmane Sonko bi muy génn di euh, kii lauréat wu concours général yi am lu mu wax lu mu wax ci église catholique bi amin ci école privée catholique yi par rapport ak port du voile islamique maanaam jigéen ñi sol hijab parce que euh, ci jamonoy Macky Sall amoon na fi benn ay problèmes yi fi amoon euh, parce que église bi dañoo ni ku sol ji bépp jigéen bu sol hijab le règlement intérieur école mayu pour nga jangé ci école manam ngay à moins que nga dindi hijab bi nga ñëw comme ñep mais lool may règlement intérieur bi lool la bon on parle d'école privée catholique maintenant je pense que les termes privés termes il faut ñu redéfinir ce que ça signifie signifier am analyser waat terme yi ay privé ay public euh, li mooy conséquence bo boo jàngalul sa peuple sa peuple bo nekkee peuple bi dafa bëgg dafa bëri analphabète ak yibu dafa bëri euh, ñu jangul wala buñu ñu leen di jàngal jàngu gumba leen di jàngal maanaam nañu accumuler rek di mémoriser fekk après yi ñooy nekk conséquences je pense maintenant ci biir lool nak dafa am euh, labé benn labbe bu tudd Latir André Ndiaye bu def benn sortie sortie bi nag moo créé coow li encore bien que am na ñeneen ñu génn temps ay ay euh, ñoom euh, ñoom Guirassy comme que mooy ministre kiy génn na bon liñ ko xamewul woon quand moom daaw ñu koy dégg ci yenn affaires yi mais mu génn mujj na mel ni ku mujj nekk géwélu Ousmane Sonko la euh, donc waaw man loolu laa gisam parce que loolu jamono yi Ablaye Wade daa ngeen gis grâce di génn di def yenn sorti yi mais moom changé na ko jamono te moom nekk na li mu nekk ministre ci Ablaye Wade moo gën a gudd foofu ay année année la nekk ministre communication ci Ablaye Wade bon anyway ginnaaw grâce tax ñu jóg ci wax ji euh, donc ñu gis ay imam ñu jóg aussi def ay sorti yoo xam ni dañoo jël huile daal li ñu naan euh, euh, mettre de l'huile dans le feu moom daal lañ def dañoo gën a xamb dañoo gën a xamb léegi nag ñu ñëw ci euh, wax ji je pense que avant ñuy commencé je pense que il faut ñu dellu ci benn affaire ci li ñuy dellu may parce que ñaari religion la ñoo clash entre ñaari religion la ak ñaari groupe bon ñetti groupe sax wala ñeent je sais pas dafa am benn groupe boo xam ni Ousmane Sonko la ñuy xeexal am benn groupe boo xam ni régime bu fi nekkoon bu njëkk ba la ñuy xeexal Barkindi donc benn groupe buy xeexal Ousmane Sonko Pastef ak casier Ousmane Sonko mooy ñëpp ñu mu àndal ak ñi ànd ak moom mooy les les pat nee nañu patriote la xaw ma doon lañ tuddee seen bopp. beneen groupe bi ñoom mooy ñi fi nekkoon avant ñoom la ñuy xeexal ñoom Macky Sall ñoom Amadou Ba en tout cas bon am si aussi ñoo xam ne ils sont ñoo xam ne peut-être dañoo taxaw ci digg bi ñun moom euh, dañu jéem a bokk ci groupe beex boo xam ne yàlla la ñuy xeexal donc dëgg la ñuy xeexal fu ñu dëgg bi fekk fu dëgg bi nekk parce que duñu de chaque fois dañu bàyyi xel ci benn xadis amin rasulullah salaam bi mu naan sallallahu alayhi wa sallam bi mu naan bi iblis ak abu xurayra iblis bi muy ñëw di euh, di sàcc baytil mal di fa sàcc la ba mu jox abu xurayra benn secret secret wu ayatu kursi bi mu ñëwee wax ko yonent bi salaa non waaye salaam ne ko sa sa sa visiteur démb ba ak yooyu après daf ko ni bi mu ko expliqué dafa ni fenkat la mais wax na dëgg comme que Iblis mooy wax dëgg yenn saay donc ñëpp la ñu war a di déglu ñu bañ comme Sénégal jikko bi ñu am tout le temps lu nit def rek ñu ne parce que dañoo bañ nit ki ku ñu bañ rek bu ñu bañee ak Ibou lépp lu mu def ay fen la xam nga lépp lu mu def moo tax dañu analyser pour loolu la pourquoi pour bañ a bàkkaar il faut ñu moytu Si manam suñu non, wala ko xamni ne gis nañu nit ku devons nañu moytu mu bàkkaar loñu manam mu def ah, par exemple Ousmane Sonko dem suit Beauté ñun ñep ñu xamni milliers de débauches. mais wax ci virgule après ñun lay ñun lay donc il faut que nous très attention maintenant ñu nous ci ok l'islam nous la duggé Sénégal d'abord par les almoravides au 9 9e siècle les almoravides ok almoravides il faut que les saxaaba yi lépp moo ngi jógee ci yi commencé pour répandre l'islam mais gis ngeen bu ne parce que mel ñu ils dañ koy le mauvais chemin euh, euh, euh, le chemin droit

La y a condition la nga dugg ci liberté parce que c'était une armée quoi une puissante armée ok parce que nous, conquérir Nous conquérir sauver nit ñi une puissante armée Nous avons ne la da ngay dugg ci l'islam wala nga impôt religion bu nekkee idolâtre nga wala chrétien nga wala kii nga nga téye sa religion mais ngay fay impôt jaziya ngay fay impôt wala nga wala ñu génn jaas yi ñu xeex ñett yooyu lañ lay condition yi ñett lañ lay donc bu nekkee yow ba duggee ci islam yow yow ñëpp léegi yaag ñëpp yem def nga citoyen de l'état islamique yaag ñëpp bokk droit boo bëggee téye sa religion da ngay fay impôt impôt bi mooy lan képp ku la attaqué képp ku la indil problème même jullit bi même xalifu jullit bi amul droit qui euh, euh, c'est droit da ngay am droit comme ñëpp da ngay nekk citizen dëkk boobu amin amin kii da ngay téye say kii mais da ngay fay impôt quoi te même impôt bi sax gis ngeen euh, bi ñu koy teggil benn juif benn instant benn juif kii dafa fekk mu màgget Omar Bey Xataab la woon je pense fekk benn màggetu juif taxaw di yelwaan mu ne ko looy kii mu ne parce que impot bi moo tax te du man dama màgget aw ma ay doom boobu la génne benn kii mu woo saxaaba yi mooy la non non mais même mais ñi fay impot euh, jasiye ñi koy fay mais à un certain âge màgget dañ koy teggil au contraire baytil maal ñooy génne xaalis di leen jox mal dañ leen di delloo maanaam comme li ñuy wax kii de retraite depuis Omar Ben Khattab la maintenant ñu jël ci xaalis jullit yi ñoom màggetu ñi nga xam ci magget yi ci ci juif yeeg chrétien yeeg yooyu yi nga xam ne ñoom dugguñu té te tey dañoo téye seen religion dañu ko di leen protéger mais léegi dem nañu fay nañu ba magget lén dañ leen di fay retraite au contraire dañuy jël léegi ci xaalisu jullit ci caisse jullit di leen fay ñom ñu ñu appliquer lolu ok ñu paré euh, wala troisième kii bi mooy boobu nangul ñaari condition ñu guerre ñu génn kii bi guerre ñu conquérir après yow soit nga génn foofu wala wala ñëpp xam li xewoon li xewoon euh, euh, Jérusalem tubaab bi bi ñu ñëwee du la ñëw ñoom euh, général Allenby bi leen gars yi yónnee le anglais ñu ñëw ñu conquérir lan lañ def dañoo conquérir après nappee di imposer seen kii mais Omar bin Khattab radiyallahu anhu ak ñoom Abu Abu Ubayda al Jarrah ak ñoom Khalid ibn Walid bi ñu bi ñu conquérir bi Omar ñëwee ñu ne duñ jox caabi lu dul amirul muminin mais bi mu ñëwee

islam ni mu duggé ci Sénégal déjà Sénégal ay commerçant fi indi il faut c'était des businessmen ay commerçants maintenant lolu islam fa la duggé Afrique fa la duggé Sénégal ok na avez ku bëggul ku ci am nga def recherches nga li wax doko christianisme na la Sénégal dafa après les années lumière parce que gars à un moment tubaab bi dañoo yone ci dëkku jullit yi fa la yone sen seen dem jàngi bi dem doom yi jàngi jël xam-xam bu bari ci jullit yi parce que jamono yooyu jullit yi dominé àdduna bi xam-xam bi yépp ñom la ok bi yalla may xam biñu ñu fofu sen seen biñu ñëwé delu ci am ñoo xamni comme dañoo demoon en mission ñom ñëw téyewaat sen religion et tout ci bir ñom am ñu révolté am ñoo xam nekkat julit am ci révolté wu la renaissance ak yooyu commencé mooy la renaissance la renaissance quoi bi wax xam nga ñu commencé di je ne pas jullit yi tamit empire bi commencé nañ caaxaan commencé ci yu ok léegi ñoom seen doom yi seen faire des ci am ñu xaw révolté mais attends ni ñuy y a des problèmes mais début fi ñu demee ñoom ñëpp mooy xale yi ñoom ñoom chrétiens yi euh, tubaab yi xale yi ñu yónni woon pour ñu jàng ci musulman yi la ñu divisé wu ak ñetti pàcc benn pàcc bi ah nekkaat jullit beneen pàcc bi ñëw dellu ci li ñu leen yónni woon mission bi ñu respecté ko ñu téye ko beneen pàcc bi nag ñoom ñoo ñëw après euh, ñu ñu ñu ñu ñu ne non texte yi niñ ñu ko tegalee y a des problèmes xam comme ni ñuy toogee rek ñu toog ba mu yàgg mu am ay gars yoo xam ne dañu nekk tijaan ba mu yàgg ñu génn de mais attends ma créé sama yoon bu bees xam nga parce que ni ma tegalee tijaan yaa wala ni ñu loolu bon genre pour ngeen comprendre quoi ok ñu pare loolu après la moo ci tegu euh, les années lumière ñu commencé nag aussi tubaab yi xam nga bon di gëstu xam nga côté art côté poésie côté ñu commencé daal seen xel yi daal ñu commencé liggéey seen xel pour leeral seen après loolu la moo ci tegu li ñu naan la révolution industrielle révolution industrielle bi loolu la indi ay le développement du machinisme li ñu machinisme gaay yi commencé mais am ay travail en chaîne par exemple ñu commencé bu ñu daan defar euh, euh, ben ki par exemple bu ñuy defar benn euh, ki par exemple mu nek mew légui usine mo koy defar nekkatul loxo nekkatul labor job xam nga manuel travail manuel bi légui machine ñew na ñu ki maintenant machine yi machine yi dafa am lu koy dawal xam dafa am lu koy dawal du dëgg mën na am pétrole moo koy dawal mën na am gaz mën na électricité mën na am yooyu nag fan lay jógee ci suuf si lay jógee ci ressources naturelles yi lay jógee ok ak yeneen ak yeneen quoi yoo xam ni peut-être euh, pas peut-être mais loolu moom mooy tax industrie bi mën di fonctionner. maintenant ñoom bi ñu commencé defal machine bi day defal lu bëri day defar parce que xam nga machine la quoi production bi dafa bëri mu dem production bi dem ba nga xam ni ñoom européens yi. mënatuñ consommer lépp parce que dafa bëri surproduction dafa am li ñuy wax surproduction ñu ne lan mais il faut ñu am ñoo xam ne nous allons leur imposer nos produits surplus bi ñu imposer mais peut-être aussi ñu am fa pétrole wala gaz wala kii bi nga xam ne mooy mën a tax machine yi kon ne di daw ñu encore une fois ñu tourner wu vers l'Afrique donc lan lañ def en Afrique ñu njëkk il faut ñu xam africains yi di xalaate d'abord ñu ne non duñ ñëw rek dem conquérir les coloniser les non non nañu xol ñom ni ñuy xalaatee ba pare lan mooy sen dëkk seen dëkk bi ñom lan moy sen culture lan moy sen environnement bi lay lan lan mo fa ne composant environnement bi ñom la lan moy sen rapport à leur environnement et tout qu'est-ce qu'ils ont fait ñu envoyé des missions mission est moyen moi église bi lañ ñëk envoyé après ñu envoyé des day bu ñu envoyé église ba paré église ba la day dugg ñu né waaw dañ leen di won Jésus dañ leen di won kii mais bu leen faté li leen taxone jox lolu amul benn julit wala chrétien bu mëna changer l'histoire lolu moy l'histoire moy li am leen taxoon jóg mooy y a une surproduction dañoo bëgg de nouveaux débouchés li nane de nouveaux débouchés lañ doon wër ok mo indi yéen nga faté martyr de l'Ouganda histoire martyr yi lan la noir yi xamuñu tubaab nga nitu église ñëw ñu ray leen Ouganda ñu rey leen léegi nag gars yi tuddee les martyrs de l'Ouganda loolu mooy histoire martyrs de l'Ouganda parce que ñoo di dafa ne ay noonu la ñu xam yu naw xamuñu ok ami aminata ok so li dugal christianisme mais dafee tubaab yi ñoom tubaab yi y un intérêt benn intérêt économique bu nekk derrière lañ wax dëgg te yàlla tax y avait benn intérêt économique bu nekk derrière maintenant bu ñu bu ñu doon ñu doon topp bien sûr après envoyé les explorateurs nous avons les les les montagnes, les la troisième étape, nous avons envoyé ñoom Nous xam nañu terrain bi terrain, terrain bi xam nañ ko ñëw ko oh, donc au Sénégal il y avait aussi un groupe les les animistes souvent les Wolofs. parce que almoravid bi tout les haalpulaar fulaani xalpulaar ñoom ñoo njëkk a pick up religion bi ci ñoom di ko répandre loolu moo tax ñoom maam Maodo ñoom it Cheikh Ahmadou Bam ñoom ñëpp ñu nekk ay xalpulaar ba ba ñoom Umar Fouti ba ci kaw ok parce que ñoom ñoo njëkk a pick up religion bi benn instant bon bien que ñooñu après la parce que islam neuvième siècle la xam ok parce que foofu la gën loolu moo tax bo boo leen dem xaw ma léegi mais dans les années soixante dix quatre vingt wax leen ma ban jumaa ngeen dem Sénégal te tukulóor tukulóor jiite wu fa boo dem pël Fuuta moo fay jiite wala wala tukulóor te ñoom ñaar ñëpp ay pulaar ni la ay xaal pulaar lañ ñoom ñaar ñëpp wax leen ma 80 dans ba années 80, ñun bi ñu nekk xale foo dem pa bi jàngale alxuraan xaal bon je parle en termes de majorité il y avait bien sûr quelques quelques dina am quelques exceptions bien sûr xam mais jumaa yu bari à part peut-être Louis. hein hein ah donc une information qui c'est le pape Nicolas qui a légalisé l'esclavage par une bulle papale de 1492 un pape un pape de l'église moi-même, a légalisé l'esclavage xam déjà en 1492, en mille faut pas que ñuy polémique wala dara mais euh, nañ dem luñu wax yépp nako ko ñi vérifier ji xol ndax diñu dëgg la wax ou pas histoire bi tamit parce que Sénégal dañoo tam ben affaire non sujet bi daa sensible lii daa sensible non nit ñi dañuy waxante deug. loolu mo am solo di waxante deug. ay sensible sensible non amul sujet sensible amul parce que ñepp ay nit lañu ku nekk da nga yéene sa morom lu baax xam ku nek sa intention bu lu ah, chrétien bi am ci musulman musulman bi lu ci chrétien bi xam ñun ci bani mam lañ am iblis sont moy nonu ñun sont chrétien musulman até ñëpp képp ku joggé ci mam nga am iblis donc il faut que ñu sont xel ci ku sont lan origine maintenant lan rapport bi ak li am tay église bobu sont dem ñun ñu sont ñu fekkee ñun loolu dañ ko ñu gis Sénégal à un moment parce que maa ngi dégg grâce ñu naan waaw les meilleures écoles xaw ma la non problème bi mooy ñun dañoo nekkoon xoola dañoo xam Saint-Pierre xam Sainte-Thérèse bi taqaloo woon zone A xam ay lycée ay ay Sacré-Cœur xam ay écoles yi nga xam ni les écoles d'excellence là yi gënoon a baax Sénégal mais pourtant Sainte-Thérèse boo demee ay Saint-Pierre ak Sainte-Thérèse boo jàddee noonu da ngay ci rond-point bi rek ah Blaise Diagne da ngay nga jàdd mais lycée Blaise Diagne moo doon sëmbaxloo bi lycée Kennedy ay Blaise moo doon bi mais ñi nga xam ni seen doom yi am nañu moyen mais qu'il soit jullit ou chrétien nekkul c'est pas parce que c'est école privée catholique mais mais jullit yi ñoo fa doon gën a bëri dañ fa doon bëri plutôt xaw ma ndax ñoo fa doon bëri wo pas mais daal ñu bëri dañ doon yóbbu seen doom mais ñoo ñëpp la la souvent ay aliénés la ñu nekk ay déracinés ok wala ñu am moyen nañu am moyen parce que l'école, école discipline la parce ok ils n'étaient pas nombreux maintenant mais madame madame Elisabeth Diouf madame jabaru Abdou Diouf jean yooyu Abdou ah. mais mais dafa mais mais euh, fondation mais école privilégié privilèges mais des école Sacré-Cœur Sacré-Cœur ni fa doon jangé jullit yi fa doon jangé mais kudd avant ñuy commencer cours bi mais dañu commencer prière bobu prière dafa mel ni ñu def Fatiha Fatiha wu chrétien mais dañ koy rester par la force mais jullit yi ñoo ngi doon envoyer sen dom fofu malgré tout, sa dom di jàng Fatiha bi Fatiha chrétien mais notre père au ciel yalla a prière bobu may wax right loolu moy la réalité donc ben instant l'école chrétienne hein mais tout bi ñom ñok fi indi mais tamit ñom Senghor ñom ñëpp c'était des c'était des kii de l'homme blanc xam nga mais ay marionnette tubaab bi la ñu donc c'était normal ñu gëna faral l'école euh, les écoles chrétiennes déjà daf mel ni rek bon entre parenthèses quoi instant bi de ngay comprendre rek euh, pour dire ku nek da nga am say problème quoi même l'église mais da ngay gis yenn chrétiens yi yenn séeréer yi yenn yenn njaago yeeg yooyu dañu kas ñu né pourquoi séréri rek ñi ki yoon ci Senghor séeréer rek ñu pourquoi ñoom rek ñoom ñooy nekk chef église bi par exemple am na ñuy kaas ci suuf ñu ne séeréer rek ñooy gérer ñoom duñ ko duñ jox keneen doo dégg ay mindi même bu amee ay benn ñaar waree ba mais tout le temps saar la séeréer yi la quoi ñoo gën a jàng ñoom ñoo kii bon c'est pas mon mais damay expliquer rek pour pour parce que loolu c'est c'est kii cuisine interne la quoi kii problème interne la waree ba donc dama doon joxe noon rek pour dire ku nekk sa problème xam nga maintenant je yi ñoo amul dara lu ñu wax yi dara lu wax ñun buñ fi tay buñ fi par exemple damay damay vous sax une question avant ñi fi nekk tay di di vous ba ñu ci internet bi di wax ñi di faral Ousmane Sonko ñi contre ku ci nekk ñaata mo nekk sa poche bi ngay taxaw di toute la journée est-ce que am nga dépense pour suba am nga lolek am nga lo courant bi li Ousmane Sonko promettre mo go gis nga ko wala gisoko bah, bah, hein? Hein? Les promesses là d'hier, des promesses électorales, pourquoi nous voulons détourner des histoires de voile En Syrie, Djabira. Est-ce que l'Union Wahon, est-ce que Amgen Mais pourquoi le plus important instant Tu sais, il voile des voile, voile, avant voile. Nous voulons pourquoi nous voulons focaliser sur voile alors que Yalla Dafani, hein? Ah, nous voile, en 2024. gars yi kaa wax di deug ñun ñep suñu papa ak suñu mam yi ok mais ñun tay ji ñun tay ji kan la jigen bu takul voile yë yëngal dama leen di laaj mais jigen bu sol lu sexy la lay yëngal mën na la yëngal plutôt mën na la yëngal jigen bu euh, sen affaire ñu def patial xawma la mën na la yëngal mais da ñu sol voile ba pare patial ñu sol voile ba pare sol jean mais donc voile bi c'est quoi et puis on parle du voile comme si mais attention mais nous, xawma génération que nous nous suñu yaay yi ñu daan nous ñoo voile nous avons double voile Nous que nous, da peut-être nous nous, nous, nous, nous, Ousmane ah, nous, nous peut-être ñun ñoo ñëw bëgg di importer tout le temps chez les autres les arabes les qui xam nga ñom voile bi nangam nangam ñoom ni ñu koy défé ñun ñu bëgg ko défé non bu nekké mo gëna rafet ñun nañ créer ben genre voile bo xam Sénégal lay nekk am nga made in Sénégal bo xam ni mais l'essentiel na nga muuru vous n'êtes pas obligé de faire comme arabe pourquoi may wax lolu moy hmm? mais yeen école yoy ñuy wax non ay Jeanne gars yag nañ fa jangé ah mais bi doomu nar yi commencé di fréquenter ces écoles là mais bobu le problème bi commencé ñoom Karim xunu xax sen problème bi fi amone moy affaire voile bi affaire voile bi bi amé du nañ ne Karim dafa détourné sen 500000 francs nar bi mo ñëw mu ne jox na Karim xulum ci souf 500000 francs la ko jox ci souf ndeket bi muy mën combat bi nar dañ ko corrompre ci souf xamu ma lañ ci xaw nar donc bu len bu len baye gaay len duggal ci yoy bu len duggal ci yoy bi nar yi ñewé la ñom sen doom yi parce que à un moment ay dans les annees 70 80 duñu nangu sax sen doom yi bokk ak ñun ay école ñoo les libanais la les naar libanais daaw ñu nangu seen doom yi mais ñaat libanais ñoo doon jàng ak ñun mais ci école boos lañ doon jàngee et tout mais est-ce wax leen ma lycée Blaise Diagne ban libanais moo fa nekkoon ak ñun ak Ibou yéen ñi jaar lycée Blaise wax leen ma rek benn gayen libanais boo leen fàttaliku mu nekk pauvre mais ñoom ñëpp dañoo amoon seen i groupe seen i kii tubaab yi tamit ay Jean Bermos ay affaire mais léegi bi seen doom yi commencé di jàng ci école privée catholique yi mais y a des problèmes non je parle de avant avant la wax bu njëkk ba Légui, peut-être légui man des libanais y a des libanais parce que légui jaxasoo nañu peut-être mais pour vous dire dafa am ben guerre bu am entre Toba yi ak terroristes ay voile bi comme français ni def par rapport ak voile bi hein ñun ñu affaire bi instant mais dafa am lu nekk ci dafa am lu nekk ci guerre bu am entre Toba, yi ñom ak arab yi pourquoi gars ont détruire Irak gars yi détruire Libye gars yi Syrie gars tous les pays arabes là pourquoi ñu ñu fay ñu ne ñoom il faut ñu détruire leen parce qu'il y a une guerre bi am am na ñoom lu ñu xam te man li ma sax mooy dañoo you know ba bëgguma sax ubbi parenthèse boobu ok donc loolu lañ jël ñu ñëw tubaab yi yi ma waxoon colonisation ni mu ñëwee mais ñoom ah dañoo former dañoo kii nekk benn peut nag c'est loolu muy erreur ah mooy quand les gens parlent de de de de de de euh, comment ça va de laïcité mais 90 98 hein? j'ai jamais vu des libanais au lycée de la Foscar justement suñu je jaay ko gis xam euh la non wax di sax gis nga euh, xoolal damay perdre fil na nga lomo que bon damay mais parfois aussi il faut ngeen comprendre parce que dama gaaw perdre fil pour fil quoi ok euh, donc euh, je disais que bon fais ma femme ma plutôt, moi. Euh, ñoom par exemple quand on parle de laïcité plutôt quand on parle de laïcité laïcité là, elle signifie mais ku nekk am nga droit à sol voile de fu la nerf. n'est-ce pas loolu mooy laïcité Bon, la a nga sol caaya dugg ci déjà français yi a njëkk contredire seen bopp mënuñ ñëw ñu ne Sénégal laïcité la ñuy dund ba pare Non, non non yow ngay da ngay tere du bi bignon sol voile mais tamit du lit après maa ngi ñëw ci yéen ñun jullit gars yi dem leen école Julit, les écoles islam privées islamiques là est-ce que ku muuruwul dina fa dugg il faut qu'on soit juste tamit nañu bàyyi caaxaan qu'on soit juste est-ce que ku muuruwul dina dugg ci les écoles privées islamiques yi nekk foofu la waxuma yëpp nag peut-être am quelques exceptions mais même il paraît même y yenn wotu yi wotu ki yooyu ah da ngay wotu normalement wala doo dugg ci école bi ah donc nit ñi nañu bàyyi wax benn affaire wax contraire bi nañu bàyyi contradiction yi xam nga ku ci nek soit gars yi respecté benn affaire wala ñu bañ ko respecté mais nit ñi di bañ respecté dara parce que way am na ci suuf leneen lu may déranger am li wala ma non non kii du sol voile parce que euh, terroristes yi ah jullit yi ci terroristes yi ñoom ñooy sol ay voile loolu mooy seen identité donc dama ko war a xeex ñu dem ba Jeux olympiques yi ab ah, une une une femme là une xaw ma sénégalaise la xaw ma une africaine en tout cas ñu ne du bokk parce que parce que de voilé te Passe de vous voir. maintenant une question que nous allons nous poser déjà nous avons euh, le que le le question que nous poser le labe André Pierre Ndiaye l'église, bi église bi personnel L'église c'est à son nom personnel

Ben Salman bu defee ay dégâts am donc ulema yi nekk Màkka ñoom ñëpp ñoom ñëpp daal baaxuñu ko dafa mel ni Macky Sall bu defee benn dégâts dem Charlie Hebdo est-ce que ñun Sénégalais yëpp par exemple benn Burkina bi da ngay topp saaga Sénégalais yëpp mais c'est le président moom moo ko def ah est-ce que dafa dem représenté mooy suñu président c'est mais am na yenn kii religieux yeeg yooyu ah, mais mën nañ ne ñun ñu ak président bi waxuma la ak nag lu gën a kii affaire religion nga xam ni bañ nañ ko bañ ñee ay protestant lañu. ah ñii ay ay témoins de Jéhovah ñu ñii ay xam nga loolu yëpp ñun ñii murit lañu ñii tijaan lañu ñii laayeen lañu ñii salafis lañu ku nekk sa gis-gis. après leg bu kenn defee dégâts rek ñu ne waa xoolal baay taalibe docteur Ahmed Lo yi gaay benn Alpha Ba bu amee benn problème ñu ne ñu ne docteur Ahmed Lo que ça avoir benn kii bu amee benn murit bu defee benn crème ñu ne sëñ Muntaxa xool murit yi. mais foo leen gis y a des donc le le gars là euh, le le le l'abbé là bi

من لا تجدن لا تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا من للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولا تجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى من ذلك بان منهم قسيسين mu ne mu ne na wa ruxbaanan wa annahum la yastakbiruun mu ne sûrement di ngeen trouver ci ñoom groupe yi nga xam ne dañ leen créer jullit yi ah, ñi gën a bañ jullit yi mu nekk ñi gën a wane haine et ci jullit yi mu nekk juif yi ak kufaar yu màkka yi mu ne ñi gën a wane miséricorde ñi gën a miséricorde nag ah ñi nga xam ne ñoom au moins ah xaritu jullit lañ bëgg nañ jullit yi ah. mu ne mooy ñi nga xam ne ñoo ngi woowee se ñoo ngi naan ñun ay chrétien lañu ñi nga xam dañu naan ñun ay chrétien lañu donc yàlla dafa jël euh, aay bi indiwaat ko ci alxuraan bi ah. <laughs> dafa indi ci alxuraan bi ñu koy liir en deux mille vingt quatre donc lan lañ koy nan lañ koy analyser dañ naan taawilul xaas lañ ci demee wala taawilul am ok mu ne. ñi nga xam dañ naan ñun ay chrétien la ñoo parce que ci seen il y a des prêtres à des moines et ils ne sont pas arrogants mu ne ci il y a des prêtres et des moines qui sont arrogants Vous yeneen fàlli ko euh, càndum yeneen fàlli ko ok le cardinal cànduma le cardinal càndum ah. mais xaritu maam Abdou Aziz Dabaax la woon yéen ngi fàttaliku élection yi bi ñuy xeex Ablaye Wade l'abbé Pierre euh, l'abbé Pierre Ndiaye Pierre la l'abbé Pierre mais moom bu daan wax man dama ko daan wax tout le temps ma mais ñii wa kii war nañ jàng ci moom quoi après kenn ne ma non am na benn chrétien sax mel xarit chrétien mu ne ma ba euh, mu ne mo xanaa xamoo ni ñoom euh, pour ga nekk yenn kii il faut nga am minimum nga am bac le bac da ngay am bac donc mais pas que bu wax ci géopolitique ay affaire yooyu buy toj situation mais da ngay gis niveau bi quoi par rapport ak suñu yenn ki yi wax donc ñu ñëw ben labbe Pierre André Ndiaye wax ñu ne non chrétien yëpp lañuy ñuy wala chrétien wala école yëpp la wala gaay yi dañ ñu bañ non amna ci yeneen ay ci alcorane bi yuy wax ni bon amna ay chrétien yoo bëgg ju may bu doon sen sago yeen ngeen nekkaat tank yi nekk nekkaat leen ay julli ngeen changer sa religion Ibrahima Diawara ñom ñom duñ leen ki ah du ñu am jàmm dëgg la wala du dëgg yéen gën a jàng quoi oustaz yi oustaz yi di ngeen wax ci loolu n'est-ce pas maintenant le labé là pourquoi mu bind benn affaire rek ñëpp topp ci di wax ah ñëpp topp ci di wax mais moom euh, déglu ko fii. buñ ko defee dañuy dañuy xañ suñu bopp wërsëg. ok fille, xaaral moi le contexte La mais pourtant même la bébé, ah. bon parce que dafa a Ousmane Sonko kiiwul di wax affaire Sweet Beauté right ñun moment boobu ñun bi ñuy Ousmane Sonko ndax mbiru la Beauté bi la bi dafa taxaw mu ne nañu jox Ousmane Sonko nañ ko bàyyi élection parce que nous yàq dañuy suñu bopp dañu nous suñu bopp wërsëg xam nga mu tiitre mu dañu suñu ah arrêtons d'éliminer les hommes politiques qui incarnent un espoir Moune Ousmane Sonko fait incarner un espoir même la bébé tey mooy wax déglu vous ko gars buñ ko defee vous dañuy xañ suñu bopp wërsëg képp ku nekk ci Sénégal yalla wërsëgal na la rawatina nag képp ku yëngu ci politique arrêtons notre comportement de vignerons homicides. Arrêtons d'éliminer tous ces hommes politiques qui incarnent un espoir. Espoir de tout un peuple, espoir de beaucoup de personnes. N'éliminons personne. Tous ces hommes politiques providentiels. Que Dieu envoie dans le champ. de ce pays. de ce pays Donnons-leur la chance de se présenter. Donnons-leur la chance de se présenter. Dégg Ousmane Sonko la défendre gars le <laughs> tay. mais tu moom mooy ñëw taxawaat ne euh, mu hein? gars yi déglu leen il faut wër quoi bon day anyway muy moment bi mu génnee lii ah moment bi muy génne lii bi muy génne hmm? waa Pastef mais dañoo xas kilifa diine yi maanaam ñoom même bu Iblis taxawoon Iblis waxuma que kii Iblis la damay doxee rek noonu dama bëgg wax même ku a nekk quoi ku mënoon a nekk waxuma l'homme d'église wala l'imam wala dara ku mënoon a nekk nga ñëw tax wax lu leen arrange li ñu bëgg a dégg nga wax ci ci ci lu arrange Ousmane Sonko mais xool dañ lay. dañ lay dañ lay dañ lay yëkkati ne yow yaay waaja ñu nekk fe xas kilifa diina yépp lañ xas dem ba leen di saaga ba pare ñu ne labbe bii nga xam ne leen religion nga xam moom dafa gëm am gëm-gëmam yoo xam ne dafa dafa contredire alxuraan ngeen koy yëkkati ngëm-ngëmam dafa contredire kàddu yàlla ñun bi gëm am na si droit parce que yàlla moo ñu ñun ñëpp bu ko neexee bu gëm ku mu neex nga gëm ku la neex kenn mënu ci dara kenn munu fi imposer kenn dara mais ku nekk aussi dañuy baax ñi seen liberté ñu gëm ñu mën a wax tamit li nekk seen coran ok mais gars yi dañ fi nekk ci seen yëfu naafiq naafiq laa wax parce que dafa am ñu bëri ñuy wuyoo jullit ñu naan dañuy wuyoo jullit fekk ni faax kese moo nekk ci ñoom ni faax kese moo nekk ci ñoom affaire naafiq rek la ñuy def ah. léegi ñu ñëw di yëkkati làbbe bi tey jii ñoom ñooy taxaw tey di saaga làbbe bi ah. gis nga ñun jullit yi ñun dañoo ñàkk fayda ñàkk fayda boo xam ne ah ok ñun dañoo ñàkk fayda quoi par exemple tey tey tey même pour revenir ci ci kii bale quoi mooy affaire école bi quoi hmm. bu ñu toogee ba tey ñuy wax ni euh, xaaral dama ne kiyal benn aaya sura Anbiya mooy way kii kii 21 kii 21 Euh, sourate 21 aaya numéro 10 gars yi ubbi dañuy ubbi Coran bi dañuy tàmm di ubbi Coran bi di gëstu bu ñu bàyyi yenn oustaz gis nga léegi ay imam Dramé ñoo fi nekk ok mais ku wax vérifier leen léegi lay amatul imaamu adduna bi yëpp ñoo ngi YouTube imaamu adduna bi yëpp ngi YouTube ngay xool ndax imaam bi ngay xool la may background ndax ku baax la ku jar la ko kii ngay xool ngay xool nga tànn ko leen ciy déglu mais mënatuñu limité wu ci ay gis ngeen imam Dramé yi ni mu amee benn labbe buy wax ay penalty noonu lay amee benn ci jullit yi ay oustaz yu dul jeex yo ay ñoom oustaz Omar Sall du fii la dugg ci politique bi moom tamit ah keroog il a exactement comme imam comme comme labbe bi mu nekk fi di yëkkati kii moom ñoom euh, morke bi fan la mu ah keroog bi imam Dramé ñëwee wax fi mu dégg mën a wax fenal yonent bi salam mu génn bëgg wax ñoom ñoom may doole ñoom imam Dramé ñoom la ñoo fi may doole Pastef ñu gis yu ne fàmm ñu dëkk ci gëmm ci seen bët ñu toog nag ba ñu kii ñaan dañu défendre yonent bi défendre yonent bi moo ngi commencé par défendre dëgg mu ne euh, aaya bi dafa ne laqad anzalna ilaykum kitaaban fiihi zikrukum afala taqiluun mu ne nous avons sûrement révélé mun dañoo wàcce ci ñun benn livre mooy alxuraan bi ah livre boo xam ne suñu gloire suñu suñu suñu li li ñuy may succès ci àdduna bi li tax ñun ñu jité aduna bi luy tax ñun ñu nek numéro 1 ci aduna bi comme bi jamono jamono bi l'islam di dominer aduna bi nga xamné en médecine lepp ñun la won presque li yàlla mayoon Égypte bi mu koy jox julit yi ha ah. mu ne lii tax ñu amat ko li tax ñu am ko mu ne moo ngi ci alcorane bi mais ñun buñu bayé ñun tay suñu école di dem ci école chrétien yi parce que nee nañu moo gën mais parce que appliquer wuñu le livre d'Allah wa kam le livre d'Allah la nous appliqué ok bu nous appliquons le livre d'Allah Nous respectons les recommandations yi commencé par sam ah par sam comprenez Nous wax ah. comprendre ma ko ñu respecté ko ñu def li ñu yàlla wax ñu ah. mais ñuy dimbali ñuy def li ñu war a def lépp wallahi dootuñu soxla yàlla dinañu gide nañu may lumière boo xam ne ñu soxla ci dem ci keneen chrétiens yi ñooy ñëw di jàng si ci ñun chrétiens yi ñoom ñooy ñëw ah xol def hijab di jàng si pour am si xam-xam bu ñu demee seen kër dina hijab bi mais bu ñu toogee ñun ñu topp ci ginnaaw chrétiens yi mais parce que dañoo nekk en contradiction ak le livre d'Allah te li ma leen di wax ne dafa am solo bàyyi leen ci xel bu baax a baax yalla mo wax man waxuma mu ne ci livre bi, le seen succès nek Omar Ben Khattab radhiyallahu anhu ah. hmm. mais daf ko wax mu leer am ay problème yu am mu ne mais bu gaa perte yenn affaire yi wala amaguñ ñen ise mais c'est parce que xana da ngeen détaché du livre d'Allah da ngeen détaché de son livre quand on dit livre d'Allah c'est pas seulement parce que les y a des nouveaux gens yu rejeté ay hadiths. quand on dit livre d'Allah c'est ar ak hadith yi

mais bu nekkee tey ñun ñoo ngi de ñun gàcce la ci ñun gàcce la tey bu ñu xoolee comportement jullit yi tey nu ñuy ñëwee l'abbé Pierre bi dafa dafa dafa manqué respect jullit yi daf ñu manqué respect jullit yi ñëw di ko faral di ko faral faral leen ko ci dëgg ci lu mu wax muy dëgg mais démb la fi doon jàppale ñoom Ousmane Sonko tey mu ñu mais du ko jàppale ba pare gars parce que lan ñom dañuy jël def ko pour venger ou wala pour créer pour créer l'ennemi quoi kenn ki moy l'ennemi donc il est à descendre by any means il faut ma descendre ko quoi lan la la, bëgg yar wax déggu len fi lu wax mu je fais partie des 2 milliards et quelques hein, des disciples de Jésus-Christ crucifiés sur une croix morts et ressuscités et non un disciple d'un Jésus qu'on aurait échangé avec la crucifixion avec un autre. Ce Jésus-Christ n'est pas le mien. Je ne, ce Jésus-Christ n'est pas le mien. Je ne crois pas en un fuyard qui aurait échappé à la souffrance et à la mort. Je Le fait qu'il ait, pensé à user du mot fuyard, quoi. a nekk ak sa gëm-gëm droit comme ni ko le yàlla quoi. wax xoolee benn may le an verset 157 yalla mu Jésus rayuñu ko crucifié wuñ ko dañ ko changé. mom amna ci droit yalla mo créé yalla mo créé amna ci droit ñun créé wuñ ko jullit ñu kenn chrétien yi julit julit jullit moomul chrétien mu mom gëmul Jésus boobu amna ci droit mom chrétien la mais ci bir loolu dafa ni sen Jésus boobu yeen ngeen gëm ah li sen Alxuraan wax mais sen Jésus bi tapette la c'est un fuyard tapette la ragal la devant la mort dafa daw mais lan moo indi wax jooju ci ay débat au voile wax waxi voile lan moo ci indi loolu daf ma rek tey tey ma ñëw ma ne ma ne chrétiens yi on parle de croix exemple laay joxe attaqué wu ma chrétien dama leen di jox exemple pour ngeen comprendre waa ji bu utiliser yenn exprès mais mën naa def la même chose mais bu ma ko defee damay toj par exemple may leen ok jamonoy Jésus croix moo am nit ñi dañ leen daaj ci ay croix après jamono tubaab bi ñu ben ay guillotine xew mais jamono Jésus ay croix la woon ah. mais Jésus tay ba fi nekkoon en 2024 tay ah ñu bëkk ko xam nañ ko la chaise électrique lañ koy teg ah mais imagine nga par exemple chrétien ngay dox ak ben chaise électrique quoi ci sa dënn ben chaîne chaise électrique est-ce que mën naa wax loolu te pourtant mën naa ko wax te doo si mën dara bon cas doo si mën mais doo ko mën teggi quoi laa bëgg wax mais du ma dugg foofu parce que tout ça boo ko kiiyee ah mais dafa croix bi dafa sacré ci yow mais man tamit kaddu yalla bi dafa am fumu ké donc amna fuñuy waxé du débat attaque wante wuñ ci débat ñu né kay ñu débat wax ñu loolu de bu nekkee kay ñu débat ku nék da ngay wax lu nék contradiction yi nék ce livre yu nék sama livre man tamit ma wax contradiction yu nék ce livre lool débat dañ ci d'accord mais mun leen wax affaire cohésion nationale laïcité ñun dañoo bokk ndey ak bay après ngay tëmbal flèche ndaw yi ci souf

église bi am benn affaire euh, euh, sëñ Muntaxa wala sëñ Mbay Si Mansour wala Cheikh Mahi wala kenn wala kenn ci ustaas yi wax dara ci église bi nga gis chrétiens yi di xeex seen biir nga seen ko gis te yàlla moo ne ci alxuraan julli da ngeen war a nekk benn ci xabla xabla kii buum ngeen nekk benn bu leen tàggaloo ngeen jàpp ci buum bi buumu yàlla bi mooy benn buum la bu leen tàggaloo mais dañu dem ba léegi ahlul kitaab yi sax léegi ñoom ñoo leen di séparer ko benn ahlul kitaab day génne benn affaire ngeen di guerre seen biir ngeen di guerre seen biir en tant que jullit mën ngeen ci waxtaan fekk mais avec une haine paroxyste ku nekk haine sa morom di ko créel dem bay saaga ah, ñi ñu jël ay page parlant affaire ndax politiciens yi politiciens yi jar nañ Ousmane Sonko Ousmane Sonko jar na ko peut-être waa Pastef jar na leen ko mais ñi seet Ousmane Sonko waru ko jar parce que wan na fi wan na fi yu bëri wax ji moy ay affaire way ay voile beeg yooyu loolu du wax ji de xam la mooy wax ji Ousmane Sonko li nga wax sénégalais yi ñoo ngi bëgg deew a xiif yaa leen promettre régler loolu bu ñu détourné de ay xoqatal ay way kii des mal ak kii yeeg xaw ma lan euh, euh, euh, chasse aux sorcières yeeg yooyu yëpp ngay wax yooyu yëpp waree ba mais régler problème mu sénégalais yi d' abord gars yi amuñu lu ñu coob inondation yi problème yaa ngi gars yi koo woo senegal booy la dëkk baa ngi mësul mel nii dëgër na dëgër boo xam ne mësul mel nii ñaata booy ñoo jël gaal gaal yi tey jii booy ambulant yi ngeen créé ñaata ñoo jël gaal yi disparaître tey booy dem nañ seen yoon wallahi billahi tallahi man ay kilifa ñoo xam ne am seen famille wallahi azim ne ma grand man defe naa damay jël gaal dem sama yoon wallahi azim ñaari ñaar ñoo xam ne mais war nañu réussir Sénégal quoi parce que jàng nañu am na lu xam-xam bu leen yàlla may ñu jël gaal bu ñu gisee gaal dañu jël dem seen yoon En ah. Sicile. Ah, si si priorité mais si détourner hmm. chaque jour nous avons ba événement bu ñu flèche chaque jour nous ñëw pour faire ñu l'essentiel pourtant nous tombé piège Un ah, chrétien un chrétien musulman ku mais ay nit lañu te ñun iblis Sénégal

gars yi xam nga affaire yi dafa dafa yomb quoi képp kuy kii nga xam nit ñi ci seen lu leen neex la ñu nekk ci ci ci lu leen neex quoi lu leen neex la nekk gars yi déggu leen. ñu ñëw ko pour ñëw inauguré rek le lendemain avion ba dellu na mu jot ne inauguré ab train boo xam ne def na ci mille deux cent waaye train ba nee nañ dans six mois la ci Sénégal yi mën a dugg loolu loo koy inauguré fii nag ci Kaolack fii nag ci Kaolack. nee na inauguré na université du Sine Saloum ndax yaa ngi nax nee na inauguré na ko ak fii beneen ba nekk Fatick beneen ba nekk Kaffrine dama ne la keroog 2016 bi ñu fa tegee première pierre ba léegi bâtiment taxaw fa amul dara fa tabax ay bâtiment lay dem loué jël xale yi sacrifié leen amul campus pédagogique amul amphithéâtre

dañoo tabax ay ay ay ay ay kii ay pipeline pétrole baa ngi génn bi mais ñoom après bi ñëwee dañoo ne premier baril baa ngi nii lii yéen ko dégg gémmiñam suñu gémmiñam suñu nopp kii fenkat la koo gëm baax na koo gëmul yaa xam kii fenkat la li wax yëpp après leerul leerul ne fenkat la fenkat bii jax na war na tax chrétien musulman ngeen di xëccoo di di di rey seen biir ah ah ah nañu waxante dëgg est-ce que est-ce que Ousmane Sonko ay waxam toog naan xaw ma leen di jaxase Sénégal saa yu waxee wax leen sénégalais ñaata nit yéen ñii yéen ñii la wax waa Pastef fii ñi faral Sonko ak ñi ko faral ñaata ngeen xam ñoo xam ni xuloo nañu ak seen mag wala seen raq wala seen jabar wala seen xarit ah ah wala seen waa kër ah mais kenn ci koo xam ne seen daleen leen jege woon léegi sax ñoo xam ne ah, xoolal dañ leen daan dimbali nit di leen dimbali yoral leen dara seen dépense wala dara Ousmane Sonko tax ñu xulo bàyyi ah ay ñoo xam ni dañ leen a sax fayal pour ñu jógee Sénégal jëluñu gaal de dañ leen a fayal ki leen fayal par exemple nit mën na leen fayal dafa bëri quoi ñu mu dal bëri na ñu mu dal xam la wala dimbal leen ñu ñëw ba yoon Nicaragua bi ñëw ex ñu pare Ousmane Sonko tax nga xulo kooku waa ji seytaan la àndal lépp lu mu wax day jaxase sénégalais yi xool leen suite bote ñëpp kenn loo leen wax non dañ ko complot ñeme ngeen taxaw ngeen waat ni yàlla rek tax ngeen waat ngeen jël kaamilu yàlla bi ngeen waat ne suite bote du milieu de cagatu du cagatu moo fa am du du ñeme ngeen taxaw kaamil ngeen waat ngeen jël téere yàlla bi jëleen ko ngeen waat ndax waxu Ousmane Sonko ak waxu Ndeye Khady Ndiaye jiwat jël Kamil kamil bi ngeen wacc ko do len ko mës def wallahi alazim do len ko def xana ngeen nek ay ay ñu nga xam ñom da ngeen pare pour dem safara do len ko mës def do len ko waat waat len ko c'est simple Pastefien ñi Sonko ku ci am fit xam nga da ngeen na mën ay affaireu ki jël len ngeen def ay vidéo ngeen def ko challenge mooy jàpp ba mu set ngeen filmer seen bopp ngeen teg seen loxo ji kaamil yàlla bi ngeen waat par billahi wallahi tallahi que Ousmane Sonko suite beauté du milieu de cagatu deuxièmement waxam ak waxu Ndeye Khady Ndiaye melul nii amul ay contradiction ci wax yi jël leen ngeen waat ko wallahi doo leen ko def parce que ci lu neex ngeen nekk yéen a tey nag parce que kenn moomu leen kenn moomu leen lu leen neex ngeen di def ok mais boo ñëwee ba tey ah, li nga xam ne warul jaxase mi Ousmane Sonko tey ah, bu doon leader waxuma la sax bu doon bu doon leader leader un leader war nga toog ñu def la premier ministre un leader la wax de nga toog même boo bëggee wax ni way jarul euh, euh, affaire voile yeeg yooyu mais mën nga ko régler ci suuf mën nga woo kii bi ngeen woote ngeen waxtaan jalo nga ni mais pourquoi ngeen ba leen xale yi kii affaire gars yi waxtaan fekk ñun sax duñ ko yëg mais nga toog ci mbooloo ci kanamu ay xale

ndax seen discours yooyu fay am booy yi déjà du ñu liggéey du ñu def dara 24 seen rek ñoo nga fa di wax ah il faut absolument rien du ñu toppatoo seen life yi ñoo nga fa suba teel damay ñëw suba teel ko ma xool ban heure moo jot Sénégal bu nekk même ñoo ngi États-Unis ñenn liggéey quoi ñu liggéey ah, liggéey am nga mais nga ñëw ma gis fa booy yi mais seen discours xam nga mooy lan waaye nañu dem fekk ko ci këram génne ko dóor ko ba mu dee ay ay kii la nu mu sax euh, Nguer Abdou Nguer la laa ngi ñu koy créer quoi naan xam nañ këram parce que loolu Ousmane Sonko moo ko dugal ci bopp xale yi moo ko dugal seen bopp noonu la def affaire voir bi tout le temps seetlu ngeen bu looy xale yi noonu la jëlee dégg il faut ngeen jàng psychologie gaayen bi ko lan lay préparer bu toogee ak xale yi lay indi yenn discours yi noonu la jëlee mu jël benn xale bu doon sànni xeer mu woo ko honoré ko xale yi toog di fubal mu dem mu dem en tant que ñoo ngi koy soo kii de Sénégal problème yëpp a ngi taxaw di xaar au lieu loolu stressé ko mu dem seetaani fubal xale yi mu nekk mu làqatu waa GIGN ñi ko doon garde dem seetaani fubal xale yi xoolal mu ñëw ay Azura ah le rat Azura mm, Azur le rat plutôt mu ñëw ah mais jox ko chèque ñu jox ko chèque un million quoi chèque un million pour tabaski bi donc xale est lay def bouclier tout le temps affaire concours général mon premier ministre mon mooy dem jàkkaarloo xale pourquoi le ministre de l'Éducation nationale ou bien l'enseignement enseignement ah, mais mon mooy dem quoi Mon mooy dem c'est ji saytaane la quoi Ousmane Sonko mu naa la saytaane la fitna bu fi am moom moo créé lépp lu fi am ci fitna Ousmane Sonko saytaane moo ko créé mais les chrétiens ak musulmans mën leen teg fële affaire de parti yi benn instant ngeen ànd ak seen livre yi leen wax seen livre yëpp livre de paix la livre yëpp jàmm la ñu woote amul livre bu fi wootewul jàmm amul livre bu fi neewul xool bible bi coran bi bu neewul dimbal leen pauvre yi na ngeen nekk ay nitu jàmm soyez endurant ah. yooyu discours yooyu ay discours yu yoo xam ne dafay développer société discours yooyu kese ñoo nekk ci Coran beeg Bible bi pourquoi ñu war a ñëw tey benn Ousmane ay affaire kii wala ay tubaab fële en ah, tax gars yi gars yi am ay problème ah, ah. nañu wax dëgg ñun ñoo ñàkk fayda ñun ñoo ñàkk fayda ñun nit yi nit moo ñàkk fayda yàlla dafa créé xam nga lañ ko lam lañ koy répété waat yàlla dafa ni ah, mu ne ba muy créé Aadama ak Awa amin bi muy créer maam Adam alayhi salaam daf ko créer avant mu créer plutôt mais dafa ni amin astafurlah dafa créer mu ne malaaka yi kareen su jootal Adam ko xam nga parce que jàngal nañ ko luñ ko luñ jàngalul ñële ñoom ñu gis ni may nañ ko xam-xam bu ñu leen joxul mais sujjóot bi du question sujjóot comme julli affaire yooyu xam nga li bi c'était pour ok Adam am na lu ñu ko jox te lépp ay test la. duñ ko jox ñu ko malaaka yi parce que leen pose si seen prétention que yéen a gën a méritant kaadam kaa lay wax ma turu turu turu affaire yi xamuñu tur yi donc aadama mu ne ëpp xam-xam contexte xam-xam lañ ne iblis ñëw mu ne aba wastakbar euh, euh, kii euh, nu tudd ñëpp sujjóot sauf iblis loolu la yàlla wax suura baxar ah iblis dafa ne après lan la wax mu ne yàlla ah beneen aaya mu ne leen mais dinaa leen attaque mu ne ci sa serviteur bi à part ñu ñu vrai yi ah, mais ñu bëri xoolal di nga gis ni xoolal ils sont pas reconnaissants naa a attaqué ci ghost from from seen seen seen ndeyjoor ak seen càmmoñ ak seen kanam ak seen ginnaaw. am na boo xam ne yu pour pourquoi waxul ci suuf parce que neen du wàcce boppam ci kanamu aadama léegi ñun suñu ñàkk fayda xam nga fan la commencer ñun ban yi aadama fan la ñu gën a ñàkk fayda mooy ah moom mu ne dañu sujjootal ba pare ñun ñu ñëw leen ñun ñoo koy sujjootal parce que ku dem tey. nga topp tey ay boxaaba li tax yàlla di mer ko ay ñu nekk ci shirk lañ nekk nga topp ay jinne ah mais ngay dem ci benn sëriñ mu lay xaw ma lan sëriñ boo am ay jinne lay consulter ay kukande ay seetkat yi ay affaire nga topp yooyu ah jinne mooy yaa ngi dem ci jinne yi di leen service ku dem di ñaani da ngay da ngay da ngay modeste right da sa bopp donc da nga dem ci iblis nga wàcce sa bopp donc yow yow yaa dem sujjootal iblis te pourtant dañ la créé woon pour nga nekk un vicaire sur la planète euh, ci planète terre ñu nekk yaa war a nekk dirigeant bi yaa war a nekk général bi nga mujjee nekk ñàkk fayda bi suñu ñàkk fayda ñun parce que yu gars yi def ñoom Ousmane Sonko yu def yëpp ay dem suite bët yooyu yëpp pour dimbali Iblis la armée Iblis Iblis la doon liggéeyal sans s'en rendre compte sans s'en rendre compte parce que woote motel combat xale yi dee mais kan moo ciy mulaay cëgin gaañ kan moo ciy fecc ba bay naaw du Iblis mu ma ci kontaan bu gisee ñun jullit yi ak kii ñun bani aadama chrétien yi jullit ñun ñëpp ñuy am problème suñu biir at the end of the day kan moo ci am kan moo ci am succès amin kan moo ciy kontaan mais ñoom ñooy taxaw nekk dans le monde des jeunes yàlla mooy dañuy gis te ñun duñ leen gis ñoom ñooy taxaw kontaan ne xoolal <laughs> iblis ne way sama promesse ah loolu moo tax yàlla ne kii bi dina ñëw ñu ne yàlla mu ne moom iblis dina ne ah gars yi man aw ma benn pouvoir ci yéen parce que dañuy def délégation dem ne dem ne iblis li yëpp yaa ngi ko indil yaa ñu indi problème yëpp ñu safara bii ñu nekk ah, ya mu ñu ñëw ci moom Iblis ne eh bu ma fontoo de aw ma benn pouvoir aw ma benn pouvoir ci tout sa que j'ai fait woo leen ngeen wuyu si ma man dama leen defal promesse Allah defal leen promesse man sama promesse ay fen la alors que promesse am maa dëgg ngeen topp ma yéen a xam mais loolu kat ñun Sénégal loolu la ñuy def instant bi topp ay politiciens yoo xam ni mais Iblis la ñuy topp ay ñoo xam ne dañ naan dañoo représenter religion bi que ça soit mu islam wala kii fekk iblis la ñuy liggéeyal tey boo déggee benn imam Dramé taxaw di saaga nday ah mais iblis lay liggéeyal di yàq deru imam di yàq deru islam benn labbe bu ñëwee tey ñëw wax yenn kii affaire du créer fitna mais moo ngi liggéey iblis sans s'en rendre compte donc moo tax il faut ñu bàyyi xel ñun ñu am fulla ñun en tant qu'être humain ba pare julli chrétiens yi ngeen am fulla par rapport seen livre li seen livre wax ngeen gëm ko ngeen appliqué ko jàmm day am Sénégal yéen lépp luy luy luy semer le désordre sur terre te loolu la yàlla wax bu leen fàtte Jibril ak malaaka yëpp lan la ñu wax bi ñu ne dañuy créer Adam ñu ne yàlla da ngay créer wa koo xam ni déglu leen baat dafay semer le désordre sur terre mu ne da ngay créer koo xam ne dafa nar a la le désordre sur terre donc semer le désordre sur terre kay lu bon la amul lu ko gën a bon kon du dëgg mais ñii il sème le désordre sur terre ba pare ñun ah boo toppee sa bible tu vas pas semer le désordre sur terre doo tuur deret doo fen doo sàcc ay njaaloo sax yooyu yëpp sax doo ko def boo toppee alxuraan bi tamit même chose doo doo corrompre kenn doo doo nangu corruption doo nangu ay ay intérêt usuraire doo nangu yooy yëpp mais ñaar livre yëpp donc ñun mën nañu ànd si kenn du duñu jàngal laïcité laïcité naturellement def nekk suñu fitra suñu fitra la nekk ci prédisposition naturelle yi la nekk amul benn tubaab bu ñëw naa waaye il un pays laïque non mooy képp ku bañ lu bon ah ku bañ lu bon ok mais di nga di nga laïque parce que di nga respecté keneen ki mais à moins que ñoom ñaar ñëpp ñu nekk ci lu baax mais bu nekkee dañoo nekk ci lu bon mais donc laïcité mënu fa am guerre moo fa mën a am parce que le bien ak le mal dañu mës a clash. maa leen nuyu sama euh, donc xam naa lañu arrêté affaire bi fii ba beneen yoon incha allah nuyu nañ leen lépp lu njuumte nag bu ci am c'est de ma part lépp lu ci nit am gis lu baax aussi comme ni ko borom xam-xam yi di waxee am loolu yàlla la ma asabaka min xasanatin fa min allah wa ma asabaka min sayiatin fa min nafsika aaya bu important la jaajëf